waaw ba tey ñu ngi ak euh, bébé Balla bu école de lutte Balla Gaye euh, moom nga xamante ne aussi euh, mi ngi ci situation yu xaw a parce que gëj na bëre donc mbër ñu ngi leen nuyu di la nga présenté wu daal di nuyu aussi. waaw ginnaaw bu ñu sant yàlla di suñu tuuti sant suñu waajur ñu ngi leen di remercier yéen ñu def déplacement bi ñëw fii quoi ñu nag ñun moom ay xarala la def géejawaay boo école de lutte Balla Gaye quoi waaw man moom maa si làmb ji depuis def naa sept combats cinq victoires am naa deux défaites oui. waaw ñu gis ne aussi euh, gëj nga bëree comme ni nga ko waxee léegi problème bi problème ménager la wala wala wala wala ban problème la quoi. non du ménager parce que maa ngi ay proposition que su xam ne si dara si bëri la parce que trois derniers combat yi mujj yi dama def benn bi abandon la ñaari kaaw la xam rek laa ma ji moom bu loxo di wax du la nangu laal ñoom dañuy jënd glace. te ñun foofuñu quoi xam nga dañuy liggéey yow suñu kës mu ñu teg lu métti kon bu ñu demee làmb amul lu ñuy négocier quoi loolu rek la du dara mais ñu ngi am ay démarches parce que promoteur yu bëri xam nañu te suñu nit lañ ñu ngi seen numéro mais souvent dañuy wax après mu dégg kii daal mooy loolu mais nag ñu ngi toog ñu ngi liggéey toog nga di nelaw di xaar ñu ngi jóg parce que à plus tard dañoo kenn mun si dëkk année blanche. waaw mais aussi métti bu métti parce que nga toog bëreewoo Eh, forcément di nga di nga entraîner ta entraînement bi tamit c'est tout un investissement kon di nga solo ñu lay jàppale kon situation boobu nan nga koy dundé wa ha lolu dama si profiter occasion di fi di ci di di ñaax sama morom bari ñi téye seen métier man dama métier ba mo xamé ko ba léegi pâtisserie lay def suma joggé fi légui dama sangu dama ligi, dama ligi door waar ba fajar surtout dépendance lo xamné xamoko suba lu mi doon wour gaay nañ am métier di job di liggéey bañu a ci su laama école bo dem di mu fekk 100 personnes ñaar lañuy dégg wala ben ñi dess buñ amul xey rek dañu wayé di te fi ko fi gis mu nekk ci kër bu amé jabar bu amul soutien de famille la boo bañ kat ko am yo xam do ko xaar année blanche yi metti na metti wul parce que depuis mu année blanche ba légui fogguma kër kenn nok li laa soxla may fa tamay soxla am yo xam kenn nok ba fa jaar ay soxla ay nit xama ñi sante yalla dal mais dafa jëno neex tamit

bu dee boo jëlee quatre-vingt-quinze pour cent bi xam nañ ma man xam nañ Bébé Ba la xaalis ma boole promoteur du mbooloo tamit du ma boole promoteur. bu dul woon loolu sama topp bi kon du am ay contact ñoom bu ma nekk woon si dara duñ ma contacter problème adversaire lay am mais ton nañ moment boo xam ne amatuñ choix lenn rek moo ñu intéressé futee ku bëre ji xam nga ma la mais tamit gëm nañ suñu bopp gëm boo xamante ne ma bis bu ñu ñëwaatee tamit li fi nekkoon lu raw la lu raw lañ fiy fekkaat. gars yi tamit nañ message boobu na ko mbëri jël tee que jaru wiiri wiiri jël ay paaf yi parce que lam moo yàqu léegi xale bu ndaw am 10 victoire boo xoolee huit yi ay mag la daan te huit yooyu man soo ma ëndiloon si benn ngoon moom ñëpp laay lem mën na amoon foo déggee 17 heures ba 20 kenn du ma si sama zone laa suuf kon boo bëggee nekk champion tey boo gisee ñun ñu mel nii ñoom Balla Gaye ñoom Modou Lo nekk ay référence lamb dañoo ñëw jaa seeni morom ñu leen mag tuuti seen i yaay dem dem egg si kaw moo tax ñooñu kenn mun leen blâmer si la am tey bu yàlla bu dogal ñu xëy am vingt huit sax kenn mun leen blâmer te seen parcours dafa baax waa mais mbëri léegi négocier cinq combats dama bëri kii cinq victoire dama bëri kii ñoo jox ay mag ngay daan après sur fii la mooy mbëri nga gis ñu bërit ñu koy coow mu xëy gaare parce que nga xam ne boo fa eggee amatul tànn affaire ak góor yàlla la quoi oui. waaw mbër ñi lay sant di la gërëm. waaw mu nekkoon Bébé Balla nekk mbër aussi boo xam te ne champion la war na tooyal xaftaanam gëj na bëre waaw nekk situation yu difficile donc Bébé Balla la woon bu école de lutte Balla